tëngëj laa dëkk man tëngëj laa dëkk. waaw non non man xam nga lu may xaar. ñëw ne la maa ngi laa dëkk. xam nga xaar li may xaar mooy ñëw taxaw ak yow nga rek nga ne ma da may dóor loolu kay laay xaar. ah day dëgg sa ndey loolu lay problème xay. loolu loolu. doo taxaw dama lay ndox dina déplacé ko doxaan taxaw doo taxaw doo taxaw man dama lay ndox man dama lay ndox man du ma sa morom. man du ma bul dóor ci kanam man dama lay ndox. man du ma sa donc je te casse la gueule man mu sa morom bu fekkente ne nag ñi saaga man tëngeej laa man ndeyam ba mu polomé nga jël jabar ji yóbbu fanaanoo ko loolu mooy dëgg jabar ji gëmul sarab ndeyam mi ngi noonu. lool laa bëgg a dégg voilà. yow yor nga xaalis. mën nañ nekk ndey liggéey. amuñu nday jom nga taxaw naan ay dañuy tuur ak ñoomin seen man dama am nday numéro kenn bay oote di la tuural tu te trop d'importance maa lay xaar fii je vais tu te la gueule bien bon voilà yow sax euh, Pascal Pascal ma ne duul Pascal ma ne bul bul wax ak man non sama hôtel sama hôtel nga ma yónnee de sama eh, sama hôtel eh, nga ma yónnee eh. de bada Eh, non eh, hôtel bi eh. ma sama hôtel la mi ngi nii man naa cee dugg position baa ma nekk nday sa hôtel yónnee la sa hôtel mënu nekk nekk sa hôtel yónnee la sama position Adamo ñëw ma oo ci ñi may oo moom dafa waxoon ne hôtel bi Wally nekkoon fa la nekk Adamo loolu la wax mënu nekk nday sa ma nekk sa hôtel hôtel boobu nekk sa hôtel di sa hôtel baal ngi lay xaar voilà Amady Dieng. yow nit ñi il ñu ñàkk il faut yow il faut que pour mën a nekk sëñ Bara yow foog nit ñi nekk sa position yow foog nit comme yow pour mën a yow pour comme saa nga nga nekk nday nit yow da ngay yow tey ngay nekk nit ñëpp menacé nañ la adduna bi ñëpp menacé nañ la ñëpp menacé nañ la man damay jëf barki Serigne Saliou Mbacké je t'attends soixante douze heures quatre jours avant maa ngi fii aw ma papa aw ma yaay aw ma jabar aw ma doom nekk ci liggéey bi focus fenn taluma dara yow nga taxaw tal sa live sept mille personnes nga taxaw naan Pascal dafay duul Pascal dafa bëgg buzz waaw tey nag tey tey dinaa la may ndey buzz yow je t'attends yow nday yow yow reewuloo sax yow reewuloo sax yow yow tu de vergogne yow amuloo yow yow Adamo doo gor yow doo gor yow doo gor yow yow tu vrai lâche le gars là tu vrai lâche vrai lâche nga waaw Ok, vai su V. Hellischstraße 158. Ma non è un hotel. Non è hotel? No, non è un hotel. Was ist das? yàlla moo la ndey dimbali ba ba yoruma ndey oto yow yàlla rek. la dimbali mais sa waay position position bi nga ma yónnee fan la xanaa nekk ko si hôtel yow. yow eh ku baax ki ah, yow lool yow uyu ma position laa la yónnee sa gat nekku ci man rek maa nekk si man rek maa nekk non man fi nga nekk wax fi nga nekk laa bëgg a ñëw eh ma nekk yónnee naa la nday position bi yónnee naa la ko yow dof non non non non bi Adamo man dëkkuma nday Allemagne yaa dëkk nday Allemagne yow yaa maîtriser Allemagne yow yaa maîtriser Allemagne man maîtriser ma nday Allemagne yow yaa maîtriser Allemagne envoyé naa la sama position jëlal sa Uber wala nga jël sa taxi nga ñëw yaa may dégg mandato la posizione di una tenda. mais yow yónnee wu ma fi nga nekk. mais yow nee na nee na du hôtel. waa waa waa coupe waa waa xaaral waa xaaral. waaw yónnee ma sa hôtel léegi léegi nii. ah nekkal nit. scendi io e dégg ngeen kii mooy wax Allemagne nee na is kind hotel. waa léegi waa léegi. Anamu. gisaat nga gis nga li ma leen ne ba léegi taalul caméra gis nga li ma leen ne. waaw. gis nga li ma leen ne. fi mu toll sécurité lay wër sécurité sécurité lay wër fi mu toll nii pour sécuriser wu. parce que wóolu wut. sëñ Bada sëñ Bada. waaw. barki Serigne Saliou Mbacké billahi wallahi wa taala ak policier allemand yi fii ku fi taxaw nga koy jaay sa bakkan yow ngay yow ngay doomu européen nga am këyit am nationalité di dem Sénégal ak ñëw yow kenn dafa mën ci yow dara police u Allemagne moo leen dëkk fekk si tey man maay lébu bi ngay moom moo dëkk ñëw ci hôtel bi moo leen dëkk fekk si man maay lébu bi ngay mujjee wax moom yow doo gor merci beaucoup yow doo ko sekk na ko bàyyi tout tranquillement yow bàyyi waale Omoro tamit bàyyi ñoom bàyyi Zal yow bu yow bu ñu téeglu sa ndey c'est grâce à Pascal yow yow menacé nga am yëpp ba pare ma duulal nga man damay yow mais Adamo yaay lâche Adamo Adamo yaay lâche man maa la duulal waa waa d'accord Adamo xam nga lan la Adamo man mënu ma ñëw man mënu ma ñëw sa hôtel dafa sori man man mënu ma ñëw du nee nga di nga ñëw mhm. du nee di nga ñëw maa maa ngi ci maa ngi ci oto bi waaw waaw ok alhamdulilah oto yaram ay booy ndey góor jigéen yi ngay nekk fii di waxal wala ñi ñu nekk ndey xombol nga leen di yi ñu noonu man si camp bi laa nekk nga nekk ci camp bi. ma yow yaa ma menacé na rek may noq. dama lay ñuus dama lay la noq dama lay ñuus aller waaw ñuus du ay noq noq sax mooy mën nga dóor nga dóor dama lay ñuus. ba pare du ma taal ba pare ba pare live bi ba live bi live bi du dañ ah même boo coupé live bi dinaa taal ndey sama caméra comme ça yow nga tëjuwut sa làmmiñ te boo ñibbee Allemagne xam naa ne même bu fayee. live bi taalal sa live bi ñëw foofu yow réewloo sax yow yaa ngi def lu ne weng nit ñi sutural la ah. nga envoyé ma vidéo yi naan ma xoolal li ma xoolal li ma euh, kii def tontuuma la adduna bi ñëpp di ma oo Pascal mooy tul Adamo mooy tul Adamo Pascal moytul Adamo fekk na boobu maa ngi dox tànku jàmm ci suuf pour nga am nday jàmm ah nga taxaw fi naan Pascal dafay duul man doo man man doo man danaa puut nday sa kaw doo may duul nag waaw ñëwal te na nga fexe ba indaale nday sa jabar fexeel nday ba indaale nday sa jabar fexeel na nga fexe nag boobu ko fa bàyyi yow réewloo sax. lu tax ma fi bàyyi. pare di duulal nday Kaliphone yow Kaliphone dafa am nday su jot Kaliphone veille bi mu oo Kaliphone jënd nday billet dernière minute a acheté un billet de dernière minute ñëpp xam nañ ne billet dernière minute dafay cher minute ñëw pause mu pause Belgique bis bi bàyyi ko fa mu jëlaat billet presque cent quatre-vingts euros jëndaat ko ñëw saagam ñoo ñoo ñoo kanam récupéré rek Kaliphone egg si ko Kali maa ngi répétition mënuma pas mënuma ah yow Kaliphone dafay sa morom téléphone téléphone il a dépensé plus de 500 euros diggante Paris ak Allemagne nga taxaw naan nga taxaw naan ka Kaliphone Kaliphone duggul yow Kaliphone dugg ba waaw bu yow moo tax Kali Kali kii dafa jarul leeral kii jarul leeral kii jarul leeral. yow nan ngay nan ngay amee kayit Union européenne ñu dugg ñu lay refoulé yow frontière bi da nga koy gis sax Flixbus fu ñuy arrêté di fuye nit ñi wala nga defee ne nit ñi jànguñu. SRV que tu veux ta ba pare ba pare ci ose taxaw naan Baye Sall nit ku baax la man ak Baye Sall waxtaan nañu yow tu n'as rien compris yow xamuloo sax xew yow tu n'as rien compris xamuloo sax xew naa fekk Adamo toi tu vrai fils de pute yow vrai. Pascal moom kay dane moom Baye Sall ñoo bokk hôtel ak Wally Balago Seck loolu la wax léegi. vrai naa fekk la vrai naa fekk la la. yow xam nga ne Baye Zale bu waxee Omaro mu bàyyi la parce que Wally Seck moo tax a hôtel bi nekk mais boo yow da ngaa xamul rek xamuloo xamuloo man kenn du man sama Adamo man yow defe naa ne da xamul lébu da comprendre da ngay dem nga laajte waa Tëngéej la mooy lébu dégg nga man on me touche pas. boos mi ngi yeex de na gaaw boog gars yi dañoo bëgg a tëddi ci Oustaz nga sa gàllaaj baax na ak Cheikh Bara Ndiaye ak Serigne Mara Niass gone gu leen moytul xam cottu ndayam ci ngaami dajee ko rek ngay dëkk de Omaro mi nga xam ne no dof la cantaakun la buy dóor du xool dégg naa day waaye buy dóor day mel ni kuy daanu kii cottu ndayam Omaro du nit kii day mel ni kuy daanu ay ay ay yësi billaahi man xaw ma lum la wala da naan mais xaw na ko rey. waaw. en tout cas mi ngi yeex de gaa yaa ngi xaar de douze mille personnes ñu ngi toog di seetaan pour ni war a kattee nday aadamoo tey Boss des Negri yóbbul jabar ji nga fanaanoo ko waaw boo xewee may ko benn trente euros wala euh, wa vingt euros waaw kay loolu laa bëgg mi ngi yeex tanga taal sa caméra bu dee yaa ngi ci oto bi taalal nday caméra bi preuve waaw xam naa ay ñaaxarañ loo ñoo ñëpp gisuma leen tey waaye xam naa seen xol yaa ngi gundaandaat parce que dañu sonn dafa poñal day réew mi ci ay saaga ki duul ay wane ay gooy wane ay data Pascal ñëpp a ngi sa. ñëwal bul arrière ngay pusin garaada. xoolal mi ngi daw xoolal mi ngi daw. xool mi ngi daw. xoolal xoolal wuyu ma xoolal déglu ma gis naa ko mu yor gis naa ko benn arme la yor benn arme moom laa doon xool. benn arme la yor yow ngay xeex ak Adama yor arme. barki Serigne Babacar si benn arme la téye ci loxo bi waaw gis naa ko moom laa doon benn arme la yore ci loxo bi barki Serigne nataal caméra bi wan leen loxo yi barki alxuraanu karim arme la yore man yoruma dara barki Serigne Babacar si benn arme la jël gis naa ko ak ma suul sama ndey yow yow yow yow yow ragal nga rek yow yaa tapet yow xanaa jigéen nga barki alxuraanul karim maa dem ba gis ko mu yore arme di ko jël nii yow yow yaa ñàkk fayda yow Pascal yaa tap yaay góor jigéen yow arme ngay yore yaw arme arme pour joteeg Adama arme ngay yore pour joteeg man armu ngay yore te indiwu ma dara barki Serigne Babacar si indiwu ma dara loxoy kese laa indi barki Serigne Babacar si maa dem ba gis ko xalaat maa dem ko tiim ko mu yore arme barki alxuraan kari ma avancé dem naa ba gis ko ba gis ko dem ba wàcc gis ko mu jël armu mu jël arme ci ci kii bi yow yaa ñàkk fayda yow Pascal doo góor sax. mais Adamo kon yow booy ah. ndeke yow doo góor. yow doo góor yow arme nga yore. Adamo. yow arme nga yore. bul aggraver ka Adamo. Adamo dul rek nga ma wax Adamo dul nga ma wax. nga nga génnee bul bul. Adamo bul aggraver sa kaa. amul arme mais amul arme man gis naa la. Pascal nga jël. gis li nga jël gis naa ko. yow doo góor Adamo bul ma saaga bul aggraver sa cas Adamo. non non doo góor. mais bul aggraver sa cas. non saagawuma la mais dama ne doo góor laa wax mais bul wax góor jigéen bul wax loolu Adamo. mais yow doo góor déedéet doo góor. nekkoo góor. waaw mais mais nekk wuy ma si xoolal non non non non sur un hôtel xoolal déglu ma wuy ma yow bu dee góor yàlla nga da ngay taxaw nga teg sa téléphone bi nga yoroo dara ma wàcc nga ma wa ma wan la nan nan la ñuy jëflanteeg nit mais ngay taxaw di jël ay armes. yow doo nit yow yow doo góor Pascal. mais kon Adamo mais Adamo kon moo ni nga def Adamo. bar non non dama ne yow non dama ne la yow doo góor. waaw d'accord naa d'accord naa man gis naa la de. dem naa ba gis la nga yëkkati arme bi téye ko ma ne borom taxi bi avancé la. Adamo ma ne maa dem ba tiim la nga yëkkati arme ma ko avancé la yow doo góor. waaw d'accord naa même ma wax. waa mais doo góor. ma wax d'accord naa même ma wax.